dëgg la. romb ñëpp. Ah, ñëw ne man Ayo Balde mhm. maa la wax dëgg la bëgg ma ba mu maa la wax loolu. te nag su ma sañee maa dëgg la. baax. Mhm. yaru. waaw waaw mhm. jantal bëgg ma. waaw waaw jantal. dëgg la te fii kat xale taasul